loolu ba mhm. xam nga tey kañ laa doon gëm Atépa bi moo dugal liaison Sonko ak Pierre léegi xam nga kañ laa gëm ni projet bii mhm. Ousmane Sonko moo ko bindoon ñu enrichir ko mhm. bi ma njëkkee ñëw lu mu la wax kan moo ko présenté moom nga ma njëkk laaj su dee su dee maîtriser nga programme boo xam ne projet bi yaa ko bind 400 cadres ci bir Pastef enrichir ko mais Ousmane Sonko yow da nga wara ñew ñëw gëmm di réciter. carrément. est-ce que Ousmane Sonko def nako ko. déedéet keneen moo ko est-ce que basirou Diomaye Faye bi fa tew def nako ko. lan lañ andi. dañu andi andi keneen mu. présenter expert expert lañ andi mu présenter ko waaw. waaw malik Euh, plan Sénégal émergent wat lim ginnaw kan moko ko présenté woon. <laughs> est-ce que non bo lalé Macky Sall ci PSE nga xamni mhm. même su ko bindul maîtriser won nako waaw carrément. non axe par axe la lay wax bo lalé axe 4 mënal axe 4 moy li li li ak li moy li wane rek ne euh, xel mi moko am peut-être même boudé bindu ko ah. mo joxé idée les orientations moko jox expert yi ñu basé ah. wu ci ay xam nga man tey mun am un programme de gouvernance mhm. mais du am ce qu'on appelle les cohérences économiques mhm. et juridiques nga jox ko expert ma jox ko expert mhm. parce que man mun naa am ben envie moo tax souvent damay ne ñun suñu am politique yi ay cuune lañ wala kon wala buñ fekkul ay tiouné lañ ils sont de mauvaise foi ding mhm. parce que euh, par exemple Macky Sall tant yi mu newé suma falo dina jëlé sama mandat 5 ans 7 ans, 7 ans, 5 ans. Mhm. Yangi de. Mhm. Après, ñu yegg ci ciapandaw ga ñu ne non lool mënul nek. Man le mais kon Macky Sall daf ñu yapp. Macky Sall un homme public comme ça diar ci institution yëpp balaa muy jël une proposition comme ça dafa war consulter des juristes mm-hmm. gars yi wax ko ndax loolu nga bëgg def mun na nekk wala munul nek. Mm-hmm. ma dégg Idrissa Seck mu ne su ma président damay changer hymne national bu Sénégal mm-hmm. ko da nga yawaate <laughs> kooku mënoo ko laal c'est sacré yu mel noonu léegi nag moo moo moo dal ñi fi nekk nii maanaam ngeen di diggee affaire yu bëri yoo xam munta ne léegi loolu bu amee tey ngeen ne référentiel vision xawma lan Sénégal deux mille cinquante mhm. rafetal ko taaral ko <laughs> présenté ko ay ay ay 3D wak ay affaire yooyu xam nga affaire bi nice. defal ñu ci suñu boobaa bu ngande waaw léegi nag la ca des. Mhm. mooy la réalité du terrain. Mhm. surtout loolu. maire bay jaay caaf. Mhm. kay jaay ciment. kiy jaay fer. ka yore fëgg jaayam di ko jaay. moom rek moom moom moom dégluwul référence yi dégluwul Sénégal deux mille cinquante mhm. moom Sénégal deux mille vingt quatre lay déglu xam nga mooy lan ndax dana am lu mu lekk tey si guddi mhm. toppatoowul loolu yooyu yooyu c'est des débats d'intellectuels mhm. waa élite bi ñoo ko moom mais moom man man man man góorgóorlu bi xam naa ne yow moom manqué woo dara yow yow nam moo dara yow moom xam naa ni kan la kan kan lay wax internet ma ne ma ne xam naa ni sa téléphone yi ñaar yëpp fees na. Orange Money bi plafonné na euh, Wave bi plafonné na yow nam moo dara. ñoom yow. non ñoom ngay wax. non dama ne mais man man mi nga xam ne sama poos yi dafa but. est ce que doo jël exemple ci keneen. non dama ne <laughs> non yow laa jël exemple dama ne. waaw man maa xam nga xale jigéen ñi ñàkku leen dara. dama ne déglu rek. man mi nga xam sama formation la wa di formation man sama poos yi man man mak sénégalais yu bari dañuy xey lu ñu lijjanti dépense bi envoyé ko mhm. xey dem ci marché bi taba taba jaay ñaari client ñatt yone kër ga déggoo lu la wax de mhm. looloo tax léegi agni di naaj mo tax agni di naaj deug la añ bu yàgg ba 1 heure lañ ko doon teg mhm. bo déggé salim to déggoo mo de xam nga bobu ben radio rek a fi nekk soo déggee Salim Tho yow xam nga ni yow tardé nga añ waaw Salim Tho boo ko déggee rek xam nga ni xam nga booy booy booy booy booy les infiltrés là ni mhm. may wax ñu xamuñu si dara <laughs> ñu yëguñ ma xew ay xale lañ xamuñu Salim xamuñu Salim Tho xamu leen Salim Tho <laughs> une heure kañ bool kañ léegi 17 heures bu teelee ba teel ngay añ ndax da ngay dem lijjanti dépensé naa waaw yaa ngi dégg mhm. te yenn saa yi sax place bu nekk sa wet su dëgëree ba dëgër boo dawee ba une heure jàpp quatorze heures jaayagoo dara soqe koogoo nga gis ni ñaar dugg nañ fa ñu ne ko saay doomu abal <laughs> lu ma yónnee non lii mooy Sénégal xam nga nag nee naa leen man je ne suis jamais déconnecté des xam nga lu tax